salaamaaleykum chers amis internautes de la Médina TV ginnaaw bi leen nuyoo rek mbokk yi kon dañuy souhaiter un très heureux ménage à Virginie Virginie nag ngeen gën koo miin kon ci boobu lay di Karma mu joué woon fa rôle bu ama am solo kon niki tey la dégg madame désormais kon elle n'est plus un cœur à prendre elle a dit oui ki nga xamante ne rek moom mooy un chanteur wala rappeur sénégalais di wuyoo ci Age Best kon niki tey la mariage boobu lay am sax ñu daal di koy célébrer. foofee ca fa nga xamante ne moom mooy njeexiraat eh, mu nekk rek loo xamante ne itam yaakaar naa ne internautes yi kontaan nañ ci loolu wala population sénégalaise bi ginnaaw félicitation yi nga xamante jib na non seulement ci actrice boobu lee nga xamante kon dañ koy bàyyi xel baax a baax waaye waykat boobu lee nga xamante itam sénégalais am nañ ci moom cofeel bu baax a baax a baax ñu bëri rek daal ne kon mariage des célébrités la ndax actrice ak chanteur kon ñoom ñoo dajawaat eh, bi la yoon mu mel ne xamante ne euh, jafe-jafe yi da ciy am rawatina seyo ñi nga xamante ne ñoom ñooy célébrité yi waaye rek daal di leen di kon ñoom ñaar ñooñu leen di seen sëy bi daal di baaxkeel te itam lépp loo xam ne séntu nañ ko ci ci njaboot rek suñu borom defal leen ko te mu nekk lu gën ci ñoom jaa ngeen jëf